من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد ورد خديمه بكي جلتي بكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته amaan nañ mbégte ànd ak yéen ci émission bi darul xasanaat kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Milano ci studio Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadoul Bachir ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar waaye di jiite ak ci nuyu bi rek xalifatul am ni day fatu muride di Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñaanal ko fan wu gudd ak wér yaram bam ba yeggale ci ko tedd waaye ñaanal jullit rawatina talibe yi ñu ci liggéey boobu te Serigne bi nangul na ko ginnaaw loolu noo ngi jël sunu nuyo bu sell di ko teg ci loxol sunu njiit di sunu jëwriñ Cheikh Ibrahima Khalil eh, jàllale ko ci seen Mouhamadan Mbakke mu jàllale ñu ko ci mbokki taalibe yëpp rawatina ñi nga xam ne rek ñoom leen seqal online ñu ànd ci liggéey bi nga xam ni ñoo ngi koy defal ku tedd ki eh, li ci jiitu rek muy jàngale ay teggin di adab waaye jàngale nekkinu doomu aadama ba lépp tey rek ci kaw suuf lépp rek ñu teg ko ci diine lislaam waaye jaarale ko ci njàng bu ko tedd ki di Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadul tey jii rek ñu nekk daanaka ci njeextal weeru rajot ndax tey la seen bu njëkk ñuy leen di waxee kon fii ci en direct ci rajo Xassida online Touba Monde bi ñu fas yéene soññante laabirante dimbalante te yàlla rek tax muy jamono joo xam ni mel na ni ñëpp dañoo jaxle ñëpp dañoo jommi kenn xamatut euh, lii fi nekk lu koy saafara pexey doomu aadama nga xam ni li tege woon ci loxoom mu mel ni dafa na ba jàpp ni moom lépp lu yëngu rek man na ko defal doomu adama demoon na ba yaakaar ni bu asamaan si doon wàcc mën koo taw ci loxoom doomu aadama demoon na ba jàpp ni eh, dend bi muy dund maanaam maîtriser na ko ba lépp lu xamante ni war naa ñëw moom mën na koo séntu lépp luy waaj a wàccit mën na ko aw waaye lépp lu wàcc ba noppeet mën na koo saafara muy jangoro ji nga xamni ni bu dee ci yaram da nan jangoral waye bu duggee ci batin danaan balaa la ndax amul lenn wala fenn fu mu jógee lulut fa ci sunu borom subhanahu wa taala bala nak bu wàccee ci ñi gëm nattu lay doon waye ñi gënu gëmul suñu borom subhanahu wa taala mbugal lay doon mu ni bi dafa met manam dafa bari ay xatar bari ay danger ndax benn kenn yaakaaru ko woon foogu ko woon benn kenn waajulu ko woon bi ci desit mooy ba tey ak jumtukaay yi nga xam ne moom la doomu adama yoroon yaakaar ni mën na ci lu ne gisaguñ ci saafara ndax gis nañ ni ñi mu dal ñi ëpp mi ngi leen di faat waaye ñi yàlla dogal ñu wér ci amul benn solution boo xam ni wala benn équation boo xam ni wala benn formule boo xam ni wala benn garab goo xam ne dana ne garab sangam gii dana ko faj ñoom docteur yi la ñuy def mooy dañuy seet kenn ko ci nekk la la faj waaye gis nañ ni amuñu unanimité bi wax ni doom sangam wala pikir sangam wala pomp sangam moo koy faj ci ci ñëpp kon mu mel ni la cay fajkee ko ak la cay fajkale loolu nag mooy li nga xamante nii mooy li ci jafe doomu aadama wàccoon ci kaw suuf am lu taxawoon suñu borom wàcce ko muy rëccu rëccu moo nu indi ci kaw suuf ndax tooñ gu suñu maam aadama tooñoon ba tax mën na ko dama lay wàcc wàcc ci suuf nga dem settali sab der dem settali sa xol dem settali sa ruu rikkuwaay booy del si fexeel ba bul takk ba tax mu gàcc ca aayab wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaxbudun ay doomu aadama ñëw ci kaw suuf wala li ëpp ci ñoom fàtte li leen indi woon ci kaw suuf muy jaamu yàlla ñu dem ba ak jay dugg ay xéewal dugg ñu waroon cee sant suñu borom subhanahu wa waaye ñu wëlbati ko di ci xeex diine suñu borom ji ñu wëlbati ko di ci xeex nit yàlla yi ñu wëlbati ko di ci xeex ñu néew doole ñi ñu wëlbatiku di ci xeex ñi nga xamante ni maanaam sax dañoo xaw a faqir mu far leen fàtte mel ni bokkutun ci àdduna ñu gis ni doomu aadama ñi ci kaw suuf li ñuy toll lépp nga xam ne ñu ngi ko xayma ci juróom benn milliard juróom benn milliard yooyu da ngay boo xoolee daanaka li jiite ci biir àdduna mat million di def di dindi ñee ci des ñëpp dañuy maanaam subir conséquences yi ñooñu dañuy subir injustice yi ñooñu te amut kenn ko ko faj amut kenn ko ko saafara amut kenn ko ko jàmbat amut kenn ko mu naqari loolu nag bu xewee yàlla yi da daal di ñëw ndax gis ngeen ni alag na fi ay nit ñoo xam ne gis nga Firawna ba ba muy yebal Seydina Moussa ca na dañu ko buur la boo xam ne moo kii nitam ne ñoom dañuy beddi aw xeet dañuy jël di def li ñuy wax discrimination xam ne dañuy jël aw faatu ci ay doomu aduna kum ci def ñu toll économie bu taxaw ken amatul jam ken tellatul dara waaye ñu gis doomu adama suñ borom dafa koo yenn ci ay ngannaayam muy sawara doomu adama maîtriser ko lol ba diko jëfëndiko ci biir kër yi te du la lak muy am ndox doomu adama maîtriser ko lol ba diko jëfëndiko ci ndox ci biir ci biir kër yi te du ta du ta du ngann waye muy ngelaw doomu adama maîtriser ko lool ba defar ci ventilateur ke climatiseur mo lay upp num la nexé te du la sojal wala bok du la jox ab liw wala du yak saw yaram wala montagne doomu adama maîtriser ko lool doy dugg ci biir di ci def ay tunnel di génn ganjar gi ci biir or bi ak yu ni mel waaye suñ borom joxaat doomu adama suuf si muy gas ci biir di génne ay jamaa di génne ay pétrole di génne ay minerai di génne ay uranium yamut ca loola ndax bu doon da koy maîtriser waaye daf koy jël ngir xeexaat ci doomu aadama ndax tey jii xam ngeen ni li ñuy wax bombe atomique la koy defar mooy uranium gis nga ni ñu wëlbatiku suñ boroom daal di wëlbatiku nag géej yeeg suuf yeeg sawar yeeg ngelaw yi nga xamni ay junoodi di sama waati wal ard lañ muy soldat suñ borom ci diggante asman ak suuf suñ borom nak ginnaw ci kun rek lay dox la def rek moy jox ndigal ñoña di leen galal wala defal dega sangam defal dégâts nangam te kenn du ci man dara gis nañ mi gis nañ fi tsunami bi fi amon ci bori Maldives gis nañ glissement de terrain yi fi am gis nañ tremblement de terre yi fi am bu yàggute waaye gis ngeen Australie jekki-jekki dekk bo xamne ma ngay tak tak tak tak ba kenn ko fay demone na ba Californie mom at mu jot ñom ñu am seen tak tak yo xamanteni ni amut kenn ko leen koy fayal waye gis nañ fi manam gi yo xamne dañuy bal dug ci biir dekk yi gis fi ngelaw yo xamne lañuy la kenn xamut mu doon gis fi rap yo xamne leg leg ñu envahir dekk bi te kenn du ci man dara gis nañ barki dembu thailand lu melni liñ wax ay golo dug ci biir dekk ba gis fii ci Arabie Saoudite ay lu mel ni ay weñ yoo xamante nii sëñ bi song nañ dëkk bi te benn produit bu leen mën a faagaagal waaye bërki dem boo njaay ñu gis fi nga xamante ni mi ngi fi ñu koy woowee coronavirus tàmbalee fa ca Chine di law ci àdduna bi mel ni dafa gaaw gaaw goo xam ne doomu aadama sa mënu koo calculer waaye ni muy wàll kenn mënu koo xam waaye lu koy saafara gis ko dem nañ ba liñ lay wax ni mooy faatu ci biiru dëkk buñ la ko xaymaalee da nga nan diiréet li mom ay weñ dong ci la daan jaadu way du ay doomu adam ñi dund biir italy loolu mom mom nañ ci tek seen loxo kon fenen lañuy natablé jangoro joju jooju du biir italy gi du Espagne gi du États-Unis gi nga xamni ñoom itam dañ ko soufalon du Angleterre bi nga xamni ne ba Italie tàmbalee takk masque ñoom dañ leen tambalé di leen ré waye du Corée du Sud du Iran du fenn bayu fenn te day law di gën law te kenn xamut saafaram kenn xamut lan moo ko andi kenn lan moo koy joxe kenn xamut nan lañ def ba mucc ci léegi nag tëj nañ ñëpp ci biir kër yi dëkk yëpp nee nañ wéyeen la doomu aadama jàppoon ni mën na ko ci kaw suuf teggeeku na ci loxoom lan moo fi des kon kàttanu suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ni mooy xëyun laa yamuut mooy ki nga xam ne day dund te du dee mooy ki nga xamante ne ci xodrat ak iraada ci lay dox mooy ki nga xamante ni mooy borom yërmande mooy ki nga xam ne mooy borom mooy ki ñuy wax al alxaadir al muxtadir mooy ki nga xamante ni mooy mbugal waaye mooy ki nga xam ne mooy jéggal tey jii ñu gis ni kon dafa mel ni dañoo tooñ suñu bopp ndax suñu borom nee na man duma tooñ doomu adama doomu adama kay mooy tooñ boppam li feeg ci leen yoon yu ma leen tëralal du ngeen gis mbugal bu ngeen ma jaamut ma jëlee leen fi indi fi ñeneen ñu may jaamu ndax jaamu dong moo tax ma bind leen waaye doomu aadama mel na ni gisut loolu xamut loolu ñu demoon ba jàpp ni puissance yi fi xew yi fi nekk ak baat yi nga xam ne day xew di xew te tënku ci moo fi nekk ñooy doxal àdduna waxoon naa leen fi nun war ci jullit war ñoo tënk ci baat yu xew di xew yi ndax bu dee démocratie mu ñuy wax ak capitalisme ala kulli alin dafiy jóge amul benn système boo xam ne da nga def téeméer at ndax gisoon nañ fi li ñuy wax marxisme gisoon nañ fi léninisme gisoon nañ fi communisme gis nañ fi socialisme tey jii dugg nañ ba ci démocratie wala capitalisme ñu dem ba mondialisation te mondialisation bu ko waxee mooy lépp loo am ci bon fexeel ba mu tas ci biir àdduna ñu dem ba doomu aadama teral gi ko suñ borom teral ba tax mu ni wala xadd karam naa ba ne aadama waaye ni ko suñ borom sàkkee nga xam ni dañi xalaxal insaana taqwiim suma radadnaahu suma radadnaahu jooju nag ñu yegg ca nga xam ni suñu borom da koo teral bind ko ci noo xamante ni amul benn rab wala benn jëmm buy mel ni moom ngir jëm yonente bi sallallahu taala alayhi wa waaye ñu bàyyeeku deltu ginnaaw mënoon a dem ba am tedd ngay malayka waaye ñu dellu te ginnaaw ba nekk ci ginnaaw bàyyi ma yem ndax li ñuy def léegi bàyyi ma yi sax seexlu nañ ko ndax dañoo dem ba lépp lu bon loo xamante nii ci jamono yu njëkk ya bu doon ñaari ñett koy def suñu borom ci tukkal ci àdduna sama xel dana dem ci xaw mu loot muy ak ngóor jigéen ñu dem ba valide ko fenn fu ne jox leen ay loi jox leen kaaraange jox leen ay ngannaay dooneel leen jox leen alal ñu koy tas ci biir àdduna te amut kenn ku mën a wax wala ku wax ñu tàggale la ñu tàggale sa bopp sa baat ku wax di kilifa ñu toroxal la ku wax di institution la nga siq ak ñoom ci ay det ci ay coopération ñu dagg ko ba ba fexe ba nga ndóol ba sa population son fa ngay mujj rek moy nangul lañ lay wax te loolu xam ngeen ni moy musiba naru lay ñu dem ba nga xamanteni ni sangara mi nga xamni mo gëna aram ci aduna ñu def ko mu ndox ñu dem ba li dug mbon nga xamni ni ak jigen sax bu dee ci ay wéy dencante dañuy dem ba japp ni ku goor ki warna mëna wuti ay ciorom ku jigen ki mëna wuti wuti wuti far te du yàq ab seen dara ñu dem ba nga xamanteni ni sa doom ji jigéen ji ci kër gi bu amagut sax fukki at ak juróom-ñett libre na ci def lu ko neex libre na ci dem su ko neex libre na ci fanan ci fu ko neex te doone ko déet ndax loolu mooy loi yi fi ne te boo ko ci at yu yu yees fukki at ak juróom-ñett ñu ni la da ngaa maye mineur te mooy mineur ñoom ñu dagana ñu dem ba sa soxna si ci kër gi yow sañoo xaj ji sañoo wax sañoo yëkkati baat ñu dem ba sa sa doom sañoo ko yóbbu ca daara ja buñ ko xabalee sax ñu ni déedéet da ngaa maltraité mineur nga xam ni lépp loo xamante ni daana dimbali diine bañ nañ ko tey dugal ci capital européen yi loi lañ def yoo xam ne léegi barabu jullikaay nee na kenn dootu ko fi sos barab bu jug xalaatatuñ maanaam lii ñuy wax ab sooroor fas yéene ko gis mu jëm asamaan di kenn suñu borom ñoo gis loo xamante ni dañ fay jàngal alquran loolu bu ma ci tuddee daayiru Monza dana ci doy sëkk bu ma ci tuddee eh, Toscana di xalaat Serigne Ñaan Diop ak ñama àndaloon yàlla na leen yàlla defal tawfiq dana ci doy sëkk kan fenn fu ne foo xamante ni fay jàngale suñu borom subhanahu wa taala ak diineen ji ndax jenn diine fi nekk ci lan la muy inna diina inda lahi islam ñu xeex la bu nu xataal la diaboliser la teg la ci media yi déformer information yi Bam mu leer na ne yow la nga doon def ak li ñu wone manam yalla la ak do mo adama nak dem ba ni ci dum ci kaw ad ci kaw suuf yaakaaroon ni lepp mi ngi ci loxom suñ borom dikk kattaman ak man-manam tek ñu lo xamni ba muy digle ci l'islam ni dee leen muuru ñu lank léegi gis nga docteur yi ni ñuy muuroo di ni naan dee leen jàpp yoon ngir julli ñu lank mu andi euh, corona bi nga xamni fo toll yaa ngi loxo ba mu ne toog leen ci kër yi bu timis jotee bu leen génn corona bi ñëw tax ñu andi couvre-feu bu timisee doodo gis kenn ci mbedd ba ne dee leen dimbalante doomu aadama yi lànk tey jii andi na fi lii nga xam ne kenn ku ne yaa ngi xalaat nooy jàppe ci gouvernement bi muy jënd am ay masque ki ay ay machine respiratoire ba mu ne jullit jullitay mbokkam réewi jullit yi nga xam ne am nañuy koom seetaan seen mbokki moroomi jullit duñ leen defal dara lëkkaloo tubaab yi guerre bu fa am sax ñoo koy alimenté tey ji kenn ku nekk gis na ni injustice boobu mi ngi dox waaye bi feebar bi dikkee ba noppi nag ana lan moo koy saafara mooy rek tuub gu sell yaa ayyuhal lazina amanu ila ilallahi tawbatan nasuha tuub leen seen bàkkaar yi ndar ndax yàlla suñu borom jéggal leen ndax moo boog mu yërëm leen tabbal leen anjana tuub leen seen bàkkaar yi balaa wees ndax mooy li gën ci yéen yonent yi fi ñëpp ñëpp loolu lañ daan wax seen seen seenu xeet ñu war a dellu kon ci istixfaar goo xamante ni gu sell lay doon bu bàyyi ko ci xol ànd akum xel ànd ak laab ak teewlu te xam ni lii fi nekk ñun ñii ñoo ko fi indi ndax yegg nañ ci bodog doomu aadama jëlale naa ngànnaay yi muy defar ngir faagaagal moroomu doomu aadamam waaye yegg nañ ci ji li ñuy wax ji ay microbe ngir muy faagagal ay doomu aadama Afrique moom doy nañ ci seede ndax feebar yu bari yi ngeen di gis yaa bu leen yaakaar ni lépp feebar yi suñ borom la donte lépp suñ borom lay jugee ndax bu nuutoon waaw du du am du ay loxo doomu aadama ngi ci ñu yor seen laboratoire yi di ci créer loo xamante ni lépp lu dafa agal ndax ku mën a defar bombe atomique boo xam ne jëlale naa rey ay junni junni nit waaye dafay des ay ati at ba nga xam ne sax ku fa doon bay loo lu fa meññee boo ko lekkee de ndox mun fa gase muy teen ba muy robinet ku ca naan boo fa jógee da nga contaminé da dee lu toll ay juróomi fukki at ak i téeméer at ndax ku gis naga Nagasaki ak Hiroshima doy na ci sëkk ku gis Palestine gii ni ko Israël yi def doy nit sëkk ku gis Kuwait gee nam mel xam ni doy nit sëkk ku gis Irak nam mel xam ni doy nit sëkk waaye ku gis Syrie ak Yemen xam ni doy nit sëkk te loolu lépp loxol doomu adama la te yéefar yi ñoo koy valider waaye li ci gën moo gën a metti li ci gën a tiis mooy ay réew yuy tuddoo jullit ñoo leen di financer ñoo leen di alimenter te bu ma ci joxoñi Arabie Saoudite dañ ci doy sëkk ndax gis nañ ni foyer de tension yi am ci réew mi ci àdduna bépp loxoy Arabie Saoudite génn ci boo demee ci statistiques yi 2018 bii ñu génn ak 2017 réew mi ëpp loo ku jënd ngànnaay ci ci ci àdduna mooy Arabie Saoudite lan la koy doyee aar barabi lislaam yi taxut ndax ñoom lislaam taxul leen a jóg waaye gis ngeen te ji niñ dala ci Yemen gis ngeen ni ñuy dooleel Israël muy dal ci Palestine gis ngeen ni ñuy alimenté la ci Syrie gis ngeen ni jàppale Amérique mu dal ci Irak te nee ay jullit yi tey jii nag. yàlla dikkal ak dogalam ba barabi lislaam bi yëpp li yi bëggoon mooy donte dañuy arrêté lislaam vingt quatre heures am nañ Makk tëj na Madina tëj na Baytul Maqdis tëj na barabi lislaam yëpp yu ci bari tëj na boo demee ci sunu réew mi gis nga ko jàkk ak jumaa yi tëj nañ lu du Tuubaa daanaka ak ajjuma ji weesu ñëw julli kon nag ndax delu ci suñu xel delu ci suñu borom jottu waye barab yi diine yoy nga xamne ci lañu waron di julli di ci ñaan limay faral di wax keur yalla mom ku ko tëj fajo ginaaw yalla mom dani xajuma ci kaw aduna waye xajna ci xolu doomu adama bu sel ak fe nga xamanteni ni lañuy wax euh, baytullaahil haram wala jàkka yi lolou moy keur yalla wa léegi budé yalla moy fajj moy safara te ñu tej ak buntam legi noy def bo fi ci buntu ak noy def bam safaral la ma dama japp ni amna ci lo xamanteni ni mom bu amet muy febar bi pexey yi noonu ngi ci pexey setan ngi ci muy fexé ba xamal nit ñi dal ni julit ñi li ñuy woote wo du deug ndax euh, febar bi mo leen téye jaamu yalla febar bo xamni ni doomu ak ni muy ngalok ni muy yëkëti ab mbagam ni muy doxé ci kaw suuf di dandi dandi koo ci gis mu yaakaar ni moom mooy moom rek moo fi nekk koo ci ne noo dar mu mer loo xamante ni boo ko doon xool ci bët doo ko gis ndax mënoo ko gis li ñuy wax à l'œil nu am microbe wàcc ci kaw suuf sonal adduna bépp amul benn pexe boo xam ne doomu aadama am na ko ci bis bu jot ñu jox la bilan boo xamante ni li ciy faatu da nga naan moom li xanaa bàyyi ko ci bàyyi ko ci dëkk bi ñu xool injustice bi nga xam ne mi ngi am ñu néew doole ñoo xamante ni ñu ngi leen di néewal doole ak boroomi kilifa yoo xam ñi ngi leen di toroxal boroomi yoo xam ñi ngi leen toroxal boroomi diine yoo xam ñi ngi leen toroxal te du tege fenn te du amuñu fun ko jooyee amuñu ko fayoo ñoo ñooñee bu nu ñaanee suñu borom du ko delloo yaakaar naa ne ku xool sunu réew mi di Sénégal barki démb ak tey ak démb ku gis image yi lay wan sa xol dana jeex sam xel dana naqari sa fit du toog te boo bëggoon réew ma boo bëggoon delloo danga xalaat leneen ndax ñu décrété état urgence décrété couvre-feu ñu vingt ba six heures du matin dañoo bëgg ñëpp toog ci kër yi yow nga de nga déclaré ko tey vingt jot rek nga wàcc ci mbedd mi yàgg say policier wut say yar ak say xiir wut say kàcc rek say liif koo dajal mënoo ko laaj sax lan lay dox maam yow daal heure boobu moment bi nga koy gis rek ci ngay tàmbalee di dóor te dang koy sot yak ci yeneen morom mom yurup ganna yurup dara wo ba xam limuy dox lu mu doon ak lan moko bay ci mbedd loolu ndax muy deug auto bi nga dajal nga arrêté ko wacce chauffeur bi wacce ñi ci biir auto bi kenn ku ne li ngay njëkk def moy jël sa xir di door te xamoo ñooñu lu ñuy dox ñooñu ndax xam nga dañoo denc won am neew bay deppum ñooñu ndax ki ci auto bi nga dajé ak mom ndax xamoo ba xam da yor ab malade diko yobbu yóbbu hôpitalam déet ñooñu nga dajal ndax amut ci ko xamni da yor ab ordonnance ci wër ab pharmacie bu mu ko jëndem deet yu bare bare yo xamni war nga ko mëna def say war nga ko mëna a saytu bala nga jël sa bière du door ndax ñun réew mi ñu nekk dunu ay jullit waye xolal nin respecté doomu Adam, ñom kat nenañ dara nañ koy dox ci ludul dangaa am benn kayit wooy bind wane ni maanaam sax doo ko yóbbu ci benn mairie wala benn ki ñu koy tamponné ko signé yaa koy signal sa bopp ni man diw ak diw sant sant nangam juddoo barab sangam ak dat sangam maa ngi xam naa li ma fekk ci bu ma dee damay dox te aw ma ndox ndox mi dox amul njariñ maanaam maa ngi dox ngir damay dugg lu ma lekk wala damaa feebar jëm hôpital wala nécessité sangam nga daal di koy signé loolu ñoom buñ ci jotee doy na sëg yow mi nga xamante ni da ngeen état de droit nga ba pare di ay jullit te ba pare ñëpp di ay mbokk ndax Sénégal ñëpp ay mbokk lan day mën a yëkkati yenn yar yi du ko teg ci doomu aadama yoo xamante ni dalay leer ni yow amul benn benn firnde bu lay wax ni kii doxu dox bu am solo te saytuwoo ko dama ne kooku ña koy def ak ñi leen ko digal ak ñi leen jiite ñëpp ay ay say-say lañ ay wéyu lañ xamuñu diine xamuñu yàlla xamuñu sax doomu aadama xamuñu adduna ndax lenn dafa ëpp indiscipline dafa ëpp ndax takk der boo xam ni bu gisee moroomu doomu aadamaam li muy njëkk xalaat rek mooy toroxal ko sëñ bi moomu réew mënta dox lu mel nii mi ngi am balaat lu wàcc suñ borom di ñu mbugal te kenn du ci mën dara ndax lenn li dafa ëpp lenn li dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo te kuy xalaat ku ne am xol boo ko xoolee sa xol dana metti say bët dana taa ndax am na loo xamante ni ñi ngi koy teg doomu aadama yi mënuñoo fayu xamuñu fu ñu koy jooy waaye lan moo leen wax ni maanaam biir oto boobu nga wàcce nit ñi di leen dóor amul médecin boo xam ne mu nga jëm hôpital war a sauver ji ay doomi aadama ba ci soxna si nga xamante ni dañ dafa war nu lor jigéenu wërit la ñoom ñu jàpp koy dóor te xamuñu lu xew loolu ndax mooy mooy mooy àdduna te ñaan dañ ki nga xam ne dañ koo tooñ de ak lu mu mënti doon moo xam yéefar la sax bu ñaanee suñ borom de suñ borom delloo ñaanam kon nan la ñuy def bu mucc ci ci ci balaa bi ginnaaw li ko tege woon ñun ñu ngi ko yokk injustice ba bari ci àdduna ba képp koo xamante dénk nañ la ay responsabilité dénk la alal joo xam da nga ko war a def ci benn société wala nga def ko ci benn projet de société nga def ko ci benn infrastructure nit nit képp waroon koo mën a jariñoo nga ne ko di ko lekk yàq sa njaboot yaakaar ni danga rees lépp loo xamante ni ak doomu aadama la nga toog ci xañ ko ko mu bari loolu boo ci duggoon ba ci société bi du jeex ñaata nit ñoo ñoo xamante ne ay wayjur lañ wàcc fi liggéey bàyyi fi alal ngir seeni doom luwaa jaar fa ba nax leen yaay jaar fa ba nax leen doomi bàjjan jaar fa ba nax leen lekk alal ja duñ ko duñ ko jariñoo ñoom ñoom jëriñi ñaata ci ay nit ci réew mi ñoo doon defarlu ay tabax dama ni moodu moodu boo xamante ni góorgóorlu na ba terrasse bu la waxoon lim ci daj maanaam mënoon naa doon ab étage ndax lañ ko lekkal ci xaalis te ñu ci bari daanaka lu ci bari ay mbokkam ñoo koy ñaata ci ay nit ngay gis ci mbedd mi ñuy taxawaalu ñoo xamante ni dañoo perdi maanaam dem ba àndatuñoo ak seen xel te dañ leen leen liggéey te kenn defu ko lu dul mbokk yoo xam ni ba muy am di ko tal lu mas a am bokk na ko ñoom ñooñu fan la ñuy fayoo ñooñu yàlla rek moo leen di fay yàllaa leen di fayul ndax li siñ sëñ Tuubaa waxoon ni man de dañ maa tooñ ma muñ suñ boroom fayul ma tooñ gi fay ma muñ gi ñooñu nag bu leen yàlla fayulee dadul yam ci ah dadul yam ci li naan ay du yam ci bopp borom kon lépp loo xamante ni injuste la dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dénoncé sëñ Tuubaa ci loolu rek sëñ Tuubaa injuste rek la mas a bañ maanaam koo xamante ni da jël aw xeet di ko teg ci kaw xeet da ngay jël nit di ko teg ko ci kaw nit ba taxoon gis nga ni mu socialisé loolu ñi nga xamante dañoo sant Mbàkke mu dem yóbbu leen ñuy ëwi ñi nga xamante ni dañ leen jàppoon naan leen ñi kat ñi ay tëgg la ñi ay gëwal lañ mu leen di bindloo ay xasida ki kaamil di leen di leen defarloo ay ay ay ay gafaka yoo ni kaamil yi la ci def ba kenn ku nekk xam ne yow kat tedd nga ga kenn ku ne nga xamante daa waroon réew mu mu toroxlul ko ba nga xamante ne dana xam ne moom doomu aadama kese la ka nga xamante dañ koo xeeboon mu yëkkati ko ba ba ñëpp xam ne kii kat doomu aadama la ñëpp kon état bi moo war a garantir sécurité nit ñi moo war a garantir bien nit ñi moo war a garantir son nit ñi barki dausubuan deug na fi ndaw su bon ca France mi koy wax Marine Le Pen muy déclarer ni président africain yi nañ fobu tax xamni ku ci France du la jël en charge ndax am nañ 60 ans pour wara a defar hôpital yo xamanteni yello nak seni rew i eh, réew wax ju ñaaw wax ju ñaaw na ay demal ci biir rew ma noonu la démé eh? noonu la démé eh? ginaaw yow bo feebaree yow mi njit doo fajoo ci réew mi France la nga yaakaar waa léegi kon sa waa réew moom buñ feebaree fu ñuy fajoo yi gis nañ fi bu yàggut euh, ki jiite hôpital principal nga xam ne daa bokk ci hôpital yi nga xamante ni moo gën a baax baax ci ci ci Sénégal te ko jiite ba feebaree dañ ko évacué France moom waaw bi muy dem malade yi mu bàyyi biir hôpital hôpital principal moom lan la leen war a wax yooyu yëpp ay injustice yoo xam ni kenn xamut ku koy faj te heure boo ko dénoncé ñu jëm laa diaboliser jëm laa booleeg loyer yi jëm laa booleeg les magistrats corrompus jëm laa booleeg des avocats corrompus jëm laa booleeg ay takk der yu corrompus ndax corruption ta weesu lii romb nit ci mbedd xamagoo lu muy dox laajoo ko justification laajoo ko benn pièce jëloo ko sax yóbbu brigade nga yor sab yar di dóor tamit mag te leer na la sax léeg-léeg ki ngay dóor moo la na la jur wala mat na la mag wala boog muy sa morom te lépp loo bëggut ku la ko def bu ko def doomu adama loolu mooy jàngale bi kon sëñ bi nañ delluwaat xel yi te xam ni li ñu dal noo ko teg suñu bopp dafa bari injustice yoo xam ni benn bu ci nekk rek bu ci yàlla jogee mën nañoo teg lu ñaaw yàlla te daa bari yërmande rek waaye nëgën waroon naa fekk sax mu caagal adduna ndax adduna li fi nekk ci injustice li fi nekk ci boddi konte li fi nekk ci xeex sa moromu doomu adama li fi nekk ci xeex sa mbokkum jullit li fi nekk ci xeex sa mbokk dafa bari te lépp man damay gis ni point boo ci dugg da ngay gis li seigne touba waxoon ni budul won dem ji wala nasaraan te kon dilay bilay ñëpp dem ran da ngay gis jikko jo xamni da lay leer ni li ku ko sawar rek moy moy sa dël te sawar ko fa jëm xam nga ni bugal mu tar la kon loolu la seigne touba gànd won motax gatcha ngalama ku nara dem sawara bugal biñ lay tek mu ko lako ko koko manam mëno ko fay looloo tax seigne touba mënu ko fay motax talibi seigne touba ko ci mu la seigne touba nit ñi japp ne dañ ko tek place dañoo defal lo xamni bu du woon ak bu du woon ak moom bu nu bàyyeeg suñu borom du baax la mu woote woon am mbooloo war ngeen a sant yàlla fekk Cheikh Adama Gueye ñëwagut ñu nañ ko xaar ba mu soññewaat ñu ni Cheikh Adama ñëwagut ba yàgg Cheikh Adama ngi ñëw sëñ bi génn daal di ni ah ndax war ngeen a sant yàlla nee nañ ñu bari daal di ni alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Adama Gueye ni ko jërëjëf sëñ bi mu delluwaat daal ndax war ngeen a sant ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Adama daal di ni jërëjëf sëñ bi ba ci ñettal mu ni ndax war ngeen sant yàlla mbooloo mi ni Alhamdulillah rabbil alamin cheikh adama gueye dal ni ko jërëjëfe sëñ bi mu ni ko ndax war ngeen sant cheikh adama gueye mi tax bu du won ak mom bàyyi leen ak suñu borom xam ngeen def ak mom ok moy sëñ touba jàngale muñ jàngale ngor waaye jàngale jaamu yàlla ci foo xamante ni sa bakkan dang koy tayle looloo waraloon mu julli ca juróom ndarba looloo waraloon mu wàcc daram ba ci géej gi looloo waral tukkeem bii looloo waral nattoom yi kon nañ leen dellu ci jaamu yàlla di ko sellal dellu ci dimbaleente te di ko nëbbu démb dellu ci muñëlante tey baale dellu ci jëllale tey jéggale loolu mooy meluw doomu aadama mooy meluw lit dañ delu ñaan ndax ñaan moy gannay julit ndax li fi xew salaaw comprimé du ko dindi pikir du ko dindi do ay comprimé du ko dindi ay masque du ko dindi gu batin rek ko fi dindi li batin dong ko fi jele yalla mi ko fi andi kep moko fi jele moko meuna jele te ko ko ñaanu wala ñu sel ñu ko fi ñaan mu nangul ñu du ko fi jele ndax te barik tooñ te réyug tooñ te ñini niy amuñu fenn fuñ ko joy lu ci suñu borom subhanahu wa taala ndax xol mom day hamna directement ru mom xamna borom mom ru mom xamna ko ko bind kon nak soñe bango man ci tup di len bal wax te di len bal te sakku lu way sekk ak sa morom nang ko jigal te yalla rek tax lu way amel sa morom boko ko nang ko ko fay lu way sekk ak sa morom nay loon lu rafet te leer te te te sell ndax aduna yagut te ëllëg du añ du reer te ñuy di wax sunu bopp di wax ñun dëkkal ñuy xam ci loone di xam looy doxal ak foo jëm ndax kenn mënut sa kanam mën sa gannaaw ku dut sëriñ bi ñun ñëpp ay doomu aadama lañ nañ bàyyi xel ñi nga xam ne ñi ngi leen di tooñ te amuñu fu nu fayoo te suñu borom rek lañu dalal seen lox loolu rek mo law ci aduna bon go xamanteni ni bi fexé nañ ba fu mu boné ci benn gox bu né lañ fexé ba mu law ci aduna ñi nga xam ne dañoo jiite te ñak fay di nang loolu gis na ni bu ñu yëkkatee loi yi la ñuy njëkk xalaat mooy barki dem gis na fi débat bo xam ba président waxé ba nopi daan ni dañuy décréter état d'urgence mom lim jikko xalat moy lu ñuy def ak nodd yi ak jakkay yi bi ak nodd lan la jotté état d'urgence jàkk yi lan la doon jotee état d'urgence bañ nañ ko ba Sénégal bu bu witeeree ñu julli ge lu tax kon nga bëgg a jaar di jubale ci jàkk yi nañ ko nañ ko nañ ko arrêté mu mel ni gi ginaar wax si soxla te li ma leer ba leer mooy jumaa yëpp ak jàkk yi buñ ko tëjee moom c'est fini booy boo kenn ku ne gàddoo say bagage te xam ni àdduna jeex na ndax daanaka jeex na ndax lii moom li fekk taxawut moom àdduna sax mën na fee jóge jeex ku du Italie xam ni li fi bàyyeekoo ci ay doom aadama li fi bàyyeekoo ci ay nit faatu bu su fee am ci jenn jam te kenn xamut dana taxawam de ñoom ñi nga xamante ni sax ay docteur la ñoo ñoom nga xam ñoo njiit politique yi dem nañ ba ni lii moom moom lañ ko waxee lii moom yàlla dong ci des kon nag delloo war nañ lépp suñu borom subhanahu wa taala di ko wax ni yaanu moom yaanu sak yaanu amal yaanu wërsëgal tooñ gi lompañ rek la tooñ gi nuur ci àdduna rek la tooñ gi ban bi ñu bind rek la waaye du yab la du miin la du bokkaale la ndax ku wéet ci sa biir néeg fële kay nga koy déclaré ci penc ma waaye boo wéetee ci sa biir néeg nga xam ne yàlla rek mooy yàlla yàlla rek mooy buur tam nag ñoo ngi jéggulu di tuub di la tugal gu sell di wax ni lii daal yow rek lañ ci yaakaar yow rek lañ taafartaloo ngir nga dimbale nu yërëmati ñu rek ak ñàkk jom dong ñu jàpp di koo xam ne dañu daa dëkke tooñ ñoo ngi lay tuubal bu wér-wér di ñaan balaa bi jóge ci kaw suuf si bàyyi mbindeef yëpp ban delluwaat ci seen yitte amaana sax xëy na buñ ci buñ ci buñ ci jógee diine ji dana gën a dox ndax lii ab jàngat la boo xam ne xëy naa xajul ci bi émission waaye mën nañ cee jàngatate lan mooy jugee ci lii buñ fi jógee ban yan conséquence ak yan jàngat lañ war a def buñ jógee ci feebar bi man de damaa gis ni l'islam mën na cee suqali ko dama gis ni réew yi afrique yépp mën nañ joy ko waaye dama gis ni sénégal war na ci mën a ko ndax réew moo xamante lu ëpp ci li ngay lekk da nga koy jéggaani buñ tëjee frontière yi tey jii daanaka weer dong nga dee xiif boo jógee ci li war ngaa mën a faggu lu lay yor te dootoo dépendre ci kenn italie gi nga xam ne day eh, maladie bi da koo décimé da koo maanaam da koo xaaj bu fi moom dana xam ni muy def te loolu rek lay jariñ balaa moom buñ ko wàccee dañoo bëgg ngeen jàngati delluwaat ci suñu borom te bu ko teggee ñu xam ne balaa la ñu sant ci suñu borom te muñ ay xéwal dong moo ci bàyyi ko ñu ngi leen tugal bu baax a baax di leen siyaare fu ngeen mën a nekk di siyaare sëriñ Dam Kebe waaye di siyaare sëriñ mbar gu jóg sëriñ Papa Doy ñoom di siyaare waa Touba Monza di jël lo nuyoo bi di ko teg ci loxol sëriñ Papa rama jóg di siyaare sëriñ Abdou baabu ñoom waaye di sant équipe bu jaspara jiital sëriñ Papa Demba Dia di siyaare ñëpp di leen baalu àq te di leen baal di wax rek ñoo ngi leen jox daje xam naa incha allah ëllëg ak jàmm ci émission Daaru Xasanat 19h30 ci rajo Xassida online ci Mbaye Fall ñoo ngi lay jaajëfal bu baax di siyaare waat Sëriñ Muntaxa bu baax di ko ñaanal fan wu gudd ak wér-gu-yaram um dund ba yégale yéeneem ci baati astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al xayyul xayyim wa atubu ilayhi tawbata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala nafan wala mawtan wala xayaatan wala nusura allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall ba muridin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh